lii spirituel ku tedd gi la lii temporel Macky la tey waaw ndax xale yi bi ñu leen jàppee ñaari yoon la ma woo téléphone xam naa ko mbir yi jaar bañ jàpp man lañ doon wut Macky leen bu mu jëm kaw te bu mu jëm kaw te bu mu jëm kaw jërëjëf ma ñëw yéen laa koy wax yéen bambis yi wutu ñu woon xale yi ñoom dax duñu ay xale sax waxin la man la ñu doon wut peut-être ki ni déedéet Serigne Mountakha ni déedéet Macky ni déedéet ndax Macky bëggul réew mi tas te xam na ni ay montage la wër na Ahmadul Xadim man li may ji bariwul de man personnellement su ma nee il faut man personnellement ah keroog ca bisu sëñ Amidou Ba gaañ yaa ngi ma doon wax naan na caméra yi waaye nag na leader buy wax buy galajaane buy wëndeelu ko tey parce que il parle avec tout le monde à chacune qui est là, homme, femme. Hmm? C'est ça. Ça a été jawwal, gauche à droite. fu am solo mooy micro yi jël li may wax image bi raté son bi du ma raté ndax man ko mënumaa toog di mënuma taxaw di wax te bañ